salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun fii nga xamante ne bii moo di eh, jumaa yi Cheikhuna Ahmadul Xadim muy tali bi dox diggante eh, kër Soxna Maymuna ak kër Cheikh Abdoul Ahad eh, bàyyi ko marché Ocass jëm si ci jumaa ji ñoo ngi fii tey jii ci le 26 mars 2022 ñu taxaw ak kenn ci njabootu Serigne Touba di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma moom Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim waaye moom Soxna Bali moom Soxna May moom Serigne Touba Khadimu Rasoul muy nituk social koo xamante ne bi liggéeyam bépp jëmee na ko ci liggéeyal Serigne marché Ocass jëm si ci jumaa ji yàqu na yàqin woo xamante ne bi mun ci dee toog di xaare rek Serigne Touba daawut def loolu da daan dem ne ci mbir ba yàlla fekk ko ca loolu nag moo tax Cheikh Abdoul Ahad tey jii mu génne ay moyem ak dooleem ànd ak ay xaritam fas yéene wuutu ci loolu mbooleem askanu eh, Serigne Touba wépp ngir defaraat diggante boobu ndax ñi ngi waajal koor gi te ku ne xam ne ne das fiy jaar di yóbbu ay ndogu ñi ngi waajal koor gi dañ fiy jaar di naafila ji Serigne Cheikh Abdoul Ahad eh, yaakaar naa ne yàgg ngaa yëngutu ci sancaan yi di yëngutu ci néew doole yi foo xamante ne bii wuutu nga fa ñëpp muy fas yéene defar tëli bii nga xamante ne bii moo jóge marché Ocass jëm si ci jumaa ji ànd ko nag ak entreprise bi nga xam ne moo di Socabek di entreprise boo xam ne Serigne Moudou Mamoun Samb moom Alaaji Kaani Samb nekkoon taalibe bi maam soxanta moo ko créé woon employé ci mbooloo mu bari mu jël leen nag tey jii ñëw ci dëkk bi ngir liggéey ko Serigne Cheikh Abdou Lahad eh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh Serigne Fallou ñu ngi lay sant di la di la gërëm eh, ni nga ko waxee rek fii day barab boo xam ne dafa diggu ci dëkk bi ndax moo ne ci diggante jumaa ji ak marché bi mbooloo mu bari mu julli ji li ci ëpp fii lañuy war a aw que euh, sëñ Fallou nekk fi ki Cheikh Abdou Lahad nekk nii que sëñ Abdou Samad que soxna May que soxna moom yëpp di ay kër doomi Sëriñ Touba daaw jëg ba mu mel nii ma amoon ci loolu nag lu ma naqari waxtu bu nekk ma ne bu ñu xëyee rek danañ ko defar waxtu wu ne ma ne bu ñu xëyee danañ ko defar bi ma demee nag bu mu jéggi dayoo nag ma ne kat Sëriñ Touba ba may teral tàgguwut kenn xaaru ci kenn kon su ma ko liggéeyal itam damay rek jóg rek jublu ci liggéeyal ko kon lii liggéeyal Serigne Touba la ci jublu ku liggéeyal Serigne Touba nag ànd ak taalibe Serigne Touba yi sama xel dem ci Mamadou Mamour Samb nga tudd ko léegi mu nekkoon sama xarit nekkoon nit ku baax ku mënoon def lu baax yàlla dogal mu mu jiitu ji ma yéene ko yool bi mu wax ak njabootam de daa am loo xam ne bëgg naa ngeen jàppale ma ci ñu ànd ci liggéeyal Serigne Touba barki dem lañ fi ñëw gis ko ñaari fan ñu dikk tàmbali liggéey bi nii kon képp ku fi jaar di julli ji rek moom moom na nga ñaanal yoon bi fekk fa nga xamante ni bii fa la fa la tëdd te lii mu fi bàyyi bàyyi ko ak njabootam suñu borom gën koo gën koo dëgëral lii nag mooy li nga xam ne mooy li war a nekk suñu suñu taxawaay ndax dëkk bi amul lenn luñ ci luñ ci war a xaar kenn ku nekk ñun sa kër dara manqué wu fa boo mënee terrasse yaa ngi terrasse boo mënee boo amee boo am 4x4 koy am boo mënee am message yaa ngi koy am waaye dafa li nga xam ne moom la ñu bokk moom moom la ñuy di seetaan loolu nag jàpp naa ne ngor da ko mayewut te ki nga xam ne moo fu nekk nekk fi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa wàcc li war a def lépp def na ko li mu war a dénkaan lépp dénk na ko waaye taxaw bi dafa des loolu nag man moo tax nag ma jóg fa surtout ma yéene xaar kenn ci lenn ci lu jëm ci dëkk bi. lu mel nii fu ma gis ak lu méngoo ak moom. lu ma ca man sama doole bopp danaa wax ne ba mu jeex takk su ma ko mënul danaa dem wuti samay xarit ñoom itam lu am ñu def ko ci ba mu jeex takk bu loolu jeexee nag li ñu am lépp bu ñu koy defee te sotti wutit da nga des ñu àggale ko sunu sunu yéene waaye du waaye bàyyi naa di jàmbat euh, bàyyi naa di xaar kenn li fas yéen daal moo di boo xam ne gis nañ ko ci bi duñ ci xaar kenn bi dafa des te Serigne Touba dafa am lépp te lii rek wane na ko ñaata taalibe Serigne Touba ñoo ne ci réew mi ak ci bitim réew te koo ci woon wax kaay liggéey lu fekk dëkk bi mu nangu kon loolu li ci des mooy ñun ñu tijjeeku tàll suñu loxo taalibe Serigne Touba bëgg a liggéey la buntu buñ la ci kon yéen maa ngi leen sant Soxaba gépp bu ngeen demee na ngeen ma santal carno ak mbooleem entreprise bi maamun lii lañu seqoon bu fi nekkoon nii rek la koy defee jóg na fi kon aussi yéen te ngeen seen tànk fa mu ko tegoon di ñaan yàlla rek barke liggéey bi di ñaan yàlla doole ko ay xéewal ca fa mu nekk te lii moom képp ku fi jaar di julli ji watey gaa yu baax yi fi jaar yëpp yi dem ñëpp duñu dañ doon mujj di di teggi foog naa ne yool boobu xajut ci yéen te mboolem murid yi xañ lañ ci kon dañ ko def defal ko mboole taalibe Serigne Touba nga xam ne amoon na yéene def ko. sëñ Pape Diop waaw nga xam ne tey jii moo jiite liggéey bi ñëw wuutu fi maam Thierno wuutu fi sëñ Modou Mamoun Samb ma nga xam ne ma nga tëdd tey itam suñ borom waxoon na ne ku dem barsàq say yool yëpp day dog ba mu des ñett yooyu nag bokk na ci defar foo xamante ni bi jaamu yàlla danañ fa mën a jaar dem di jaamu ji yàlla ngeen ñëw ma bëggoon rek ginnaaw boo présenté woo nga wax ñu li nga fi fekk ak yéene ji ngeen am ak ni ngeen ko fas yéene defaraate salaamaaleykum wa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa yi di sant bu baax sëñ Abdou Lahat mi nga xam ne si ne bis bu ñëwee fii participer ci liggéey sëñ tubaab bi yàlla ci loxoom la ko jaarale bi mu amee soxla si wax ko kilifa yi ñu ne dañu ko wax amatuñ luñ cay teg dañ caa kontaan parce que xam ne tuyaaba rek lañ cay jëlee te ki nga xam ne si ne moom moo jiitee entreprise bi yàlla def bu dawlu lu baax la ci moom. ñun ñun ñoo liggéey tali bi nekk fële Saam Madiana mooy huit kilomètres yi Pakaseen yi euh, fii nii bi ñu fi ñëwee wan ñu ko aussi gis nañ ko def nañ constat bi Touba problème bi gën a constaté mooy tali yi norme yi moo ci manqué ñun bi ñu ñëwee gis bi ñu purgé gis nañ benn couche moo fi am ak fii dafa am trafic loolu mënut a yàgg ak tali. ñun bi ñu ñëwee après dindi nañ li fi nekkoon ci mbalit purgé ko léegi war nañ koo def ñaari couche fondation bu ndaw defaat benn couche de base bu am ciment xam si ne nit ñi dañ ci mën a trafiquer normalement loolu daal lañ fas yéene liggéey incha allah. Euh, ci ban app ngeen jàpp ne da ngeen ko liggéey ndax koor gaa ngi jege. maximum ñaari fan moom lañ ko planifié incha allah.